la même chose. Mm-hmm. léegi ndox moo sotti day dem ba mm-hmm. waaw léegi nag loolu bu ci ñëpp jàppee ci set setal bi. gëm naa ni doo doxoo ndakaaru boo doxee sax sa ñaar bu waddee di nga ko war a mën a gis. nga mm-hmm. war a ndax set setal bi am na solo. moom ma bàyyi la kàddu bi nga nga jàkkaarlook euh, sunu sunu ganu bés. Euh, ñu koy wax. Euh, Ababacar Diouf. dit Ababa dit Abakara. Abakara voilà Abakara. voilà di di fàttaliwaat internet yi moom euh, Abakara Ababacar Diouf. Mhm. Euh, nekk classe bu euh, Fulbert Sambou. defe naa bu ma waxee tur bi sénégalais yu bëri jàpp nañu ko di ko faral di dégg tout le temps ci média yi 18 novembre 2022. ba ñu génn la ñu jotoon information ci disparition wu ñaar. di ki nga xamante ne nii moom moo di Fulbert euh, Sambou di militaire ak ki nga xamante ne nii moom moo di euh, Didier Badji aussi nekkoon nekkoon gendarme donc mu nekk mbir moo xamante ne nii euh, dafa secouer la toile depuis jamono boobu ak léegi ñu ci bëri am ci ay interrogation yu ci bëri xew si ñu ci bëri tamit am xalaat boo xamante ne am nañ ko par rapport ak li nga xamante ne nii moom moo xew waaye laataa ñu dugg ci mbirub mbirub mbir moomu dama bëggoon ki nga xam ne nii moom moo di Abakara daal di dellu si ci déjà le profil de ki nga xamante ne nii moom moo di Fulbert Sambou parce que sénégalais yi mën nañ xëy suba dégg DJ Badji Fulbert Sambou ñenn ñi dañuy dégg que militaire la mais euh, moom c'est quelqu'un boo xamante ne ni dafa servir sa nation donc dama bëggoon nga dellu si bu baax a baax sur euh, qui est Fulbert ak parcours bi mu jot a def ak li nga xamante ne nii servir na ko ci ci biir réewum Sénégal. waaw moomoo wax ci Fulbert maanaam ñun ay classe am daf ñu dafay doon loo xam daf ñu yomb trop. ndax benn Fulbert mi ngi juddoo ci benn village île bu ñuy wax ñoomul en Casamance Fulbert ñi ngi xamante le 1er mars 1998 muy date bi nga xamante ni moom la ñu bokk incorporé dans l'armée sénégalaise bi ñu fa jógee ñu doonoon contingent bu nga xamante ni contingent 98 ku ko xamul tamit dégg nga ko. mu doon contingent bu nga xam ne il faire une formation de six mois. Mhm. ci biir six mois yi ñu dugg Bango la premier mars quatre vingt dix huit génn fa le dix sept juin quatre boo xoolee diggante boobu trois mois la. Mhm. ci trois mois yooyu la waral ñu génn. dafa am la nga xamante ne dafa xewoon Guinée Guinée Bissau te mu doon un pays frontalier avec le Sénégal. Mhm. muy guerre ni nu bi fa amoon ak Ansoumana Mané en quatre vingt dix huit bi ñu demee nag boobu la président Abdou Diouf jël décision jox autorité militaire yi fi nekkoon. ci la ñu mhm. génne ñun étant de recrues. Mhm. des recrues des gens qui devaient faire une formation de six mois on a fait une formation de trois mois la ñu génne daal ñuy yóbbu foofu ci Guinée Bissau. Mhm. ñenn ñi bu ñu duggee Guinée Bissau ñenn yi dañoo des à Kolda ñenn ñi nekk à Ziguinchor Fulbert ci ñi desoon Kolda la bokkoon nekk diggante Saameen Tanaaf. Saara Ndiaye Saara Alkali Medina Yoro Fula presque Fulbert daal amul parcours am nga xam parcours bu riche la. Mhm. mu fa jógee tamit Fulbert servir na au vingt cinquième BRA servir na au cinquième bataillon d' infanterie à Ziguinchor. Mhm. Fulbert bu mu fa jógee Fulbert nekkoon na tamit bureau recrutement Fulbert tamit bureau recrutement boobu li ko fa yóbbu. mooy fi nga xamante ni service bi mu nekkoon ni renseignement. am mhm. ñoo ko détaché woon tamit mu nekk bureau recrutement. Fulbert boo demee village am jeunes yi fa nekk ñëpp doon ay soldats ba ñenn ñi tey ñu doon ay gradé. Mhm. bu weesoo kenn rek la ci Fulbert yóbbuwul armée te c'est un adjudant chef. Mhm. mais jeune bi jeunesse bi nekk village am yëpp ak environ bi. ba ti ñun ñii di ay classe am am na ñoo xamante tey seen doom ñu ngi dans l'armée c'est grâce à Fulbert Sambou mm-hmm. donc Fulbert doonoon na koo xamante ni borom xool bu yaatu Fulbert njaboote woon na ñëpp Fulbert bu dee wax ak yow sax doo xam la muy wax bañ nañ ko dañ ko doon woowee Fox mm-hmm. Fox maanaam euh, Dimitri Fou Fulbert bi F bi mm-hmm. euh, appel phon phonotonique euh, xaw ma noonu laa ko mën a waxaatee mais Fulbert doon na koo xamante ni daal njaboote woon na ñëpp te comme ni ma koy waxee rek. Mhm. jikko puso la yoroon. Fulbert yorul woon jikko lan seet di tàggale Fulbert dafa doon di boole. Mhm. te nit kuy boole moo waral tey mbiru Fulbert daal di toll fii nga xamante ni fii la toll ba àdduna ñëpp foo tourné di dégg Fulbert Fulbert. am na mhm. ñoo xamante ni metti na leen sax te xamuñu Fulbert. xëy na nag tolluwaayam ak ni mu meloon ak nit ñi nu mu doon dundee doomu aadama yi. moo tax tey mu jóge fi. nga gis buñ bu ñuy wax man su may wax ci Fulbert mhm. j'ai les larmes aux keneen ak keneen ku koy seetaan koo xam boo déggee Fulbert rek te xamuloo ko ndax ñu bari ni ma ci interprété mhm. xaw ma Fulbert mais boo dee wax ci Fulbert suñu xol day tooy mhm. kon loolu nit ki moo ko liggéey mooy li ñuy wax rek nit ku nekk nanga nga rek noonu la say mbir di toll te mbirum Fulbert ëpp na Sénégal Fulbert yoroon na xool bu nga xamante ni xoolu àdduna la yoroon man su ma damay taxaw ma ni Fulbert euh, wàlliw la wàlliw la ndax euh, nit ku fi jógee ñi fi jógee bari nañ suñuy classe quatre-vingt-dix-huit mhm. am na ñoo xamante ne à trois mois de service lañ daanu Guinée Bissau mhm. am na ñoo mois de service la ñu dagg seeni tànk ñeneen ak ñeneen ñoo xam ba ñu jógee seen kër dem Bango bi ñu leen di delloowaat solo ñuy daal ci seen kër yi lañ leen def mhm. mais ñooñu ñëpp kenn waxu leen te duñu leen mës fàtte tamit ndax ñu ak ñoom la woon démb ba tey. Mhm. mais Fulbert dafa doon koo xamante ni il est ba tax àdduna ñëpp di ci wax. Mhm. mu metti sénégalais yi metti ñëpp metti ay classe am. Mhm. kooku mooy Fulbert Sambou. Euh, yaa ngi wax léegi ci ci ci parcours am mais moment bi nga xam ne nii xaw ma disparition laa koy laa koy laa koy tuddee. wala boog incident bi nga xam ne ni am na euh, moment bi loolu di am moom mi ngi doon servir ndax dafa fan la doon fan la nekkoon doon servir ak dafa laale woon ak pale de la république parce que tout le temps euh, dañuy dégg ci biir mbir mi ñu ciy wax bay tudd présidence. waaw noo xam nga Fulbert fi mu bokkoon renseignement la bokkoon. ok te ku nekk renseignement. di nga laale ak présidence di nga laale ak fépp. d'accord agent de renseignement la woon. Mhm. kon bu nee renseignement rek fa mu bokkoon. Mhm. c'est normal mu laal fu nekk. ndax booy xool Fulbert demoon na ba weesu na sax cadre liggéeyal Sénégal. Mhm. booy xool àdduna la doon liggéeyal ndax ku am renseignement. direction ba mu nekkoon. du ku nekk moo fay dem. képp ku fay dem am na benn euh, enquête de moralité bu ñuy def ci yow. si je comprends bien. war nga doon tamit koo xamante ni am nga bàmmeelu biir. koo xam mën nga téye ay secret. Mhm. cause pour laquelle loolu moo yóbbu Fulbert foofu. moo tax comme ni nga ko waxee mënoo nekk renseignement te doo dugg présidence. Mhm. waaw. d'accord alors euh, ñun euh, yi en général dañoo xëy benn bis rek ci date du 18 novembre bi may wax. 18 novembre 2022 ñu jot information ni que dafa am euh, ñaari euh, benn militaire benn gendarme boo xamante ne ni dañoo disparaître ñoon noonu la ñu jotee information bi yow par exemple bi nekk koo xamante ne ni xam nga Fulbert euh, du ñàkk itam ci corps bi nga nekk jegeyantoo ngeen un peu ak ki nga xamante ne ni moom moo di Didier ji naka nga jotee cette information ak évolution bi ni mu demee euh, ñu au début ñu ne dañu disparaître à un certain moment ñu wax ne voilà euh, am na ay traces yu gis que euh, Fulbert dafa doon napp ji quelque chose comme ça à un certain moment ñuy wax waxu corps déjà yow naka nga jotee information boobu noonu ak évolution bi naka nga ko dundee ak li nga xam ne ni xew na ci jamono boobu. waaw moomoo comme ni nga ko waxee rek. le 18 novembre 2022. Mhm. ni nga ko déggee noonu laa ko déggee noonu la ko àdduna yëpp déggee. te ku xamoon Fulbert Fulbert temps perdu yëpp ci napp la ko doon def